gërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di RTV Dakar li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy door rek communiqué bi nga xamante rek collectif des avocats bu Ousmane Sonko la dinañ koy yëkkati ñoom nag ña fukki fan ci weeru décembre ginnaaw ba huissier justice bii di maître Guillaume Sagna àndaleek ak monsieur Mohamed Ayib Daffé di mandataire ci Ousmane Sonko demoon nag di wutali caisse de dépôt et de consignation ngir nag daal di jot li nga xamante ne woon nag ci tribunal grande instance bu Ndakaaru doon sàkku ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye nag boobulee ordonnance nag signification bi nga xamante ne kii ko doon amal ñeel boobulee délibération attestation ginnaaw bu mu ko signé nag ba noppi Ousmane Sonko ci jëmmi boppam nag dafa waroon a verser li nga xamante ne moom mooy boobulee caution bu koy may nag ñu daal di koy inscrit ci liste électorale yi comme na grand tribunal yi nag ca Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci L47 bu code électoral waaye nag mbir mu mel ginnaaw bu ñu demee ci liyee rek ñii di huissier ak mandataire yi dañ leen daal di tere ñu dugg ca boobulee bërëb ndax nag sécurité bi nag ñoo xeexal Ousmane Sonko wala ñi koy layal ña ngay naqarlu bu baax nag anam bi nga xamante rek moom la justice bu sénégalais di procédé ñeel nag décision bi nga xamante rek moom moo tukkee woon ci ñaari tribunal yooyu gàntal candidature kii di Ousmane Sonko kon nag am na nu muy demee rek dinañu jaax dinañu loo xamante ne rek àq la ak yelleefu doomu aadama wala rek mbir mu ñu ngi di yëkkati eh, seen kàddu nag bi nga xamante ne rek moom la ñuy maltraité ñooñu le ba noppi nag candidat Ousmane Sonko ci jëmmi boppam nag yi nga xamante ne rek moo koy permettre nag bu daal di déposer yooyu les candidatures nekk na mbir moom mooy eh, dépôt secoué mu nekk nag ab démarche boo xamante ne rek autorité exécutive yi nag ña ngi koy naqarlu bu baax rawatina nag valeur ak démocratie bi nga xamante rek moom mooy principe fondamental bu état de droit ñoom collectif avocat yi koy layal nag ñu daal di rek fësal boobulee xaatim ñu fàttali ñoom collectif yi nag ñu ngay bu baax rek kii di président de la république Macky Sall message bi nga xamante rek war na koo adressé nation bi xamante ne daal dina koy eh, def mu nekkoon mbir moo xamante ne rek lu ñu exécuté la ba tey rek la mu daal di xam ne waat ñoom collectif yooyu ne nañ état de droit bi nga ne nag ci lañ nekk jamono di huissier bu justice officielle nag nag la ñu daal di xam ne rek mooy état bu Sénégal ci jëmi boppam nag war na respecté bu baax décision yi nga xamante ne rek moom la leen cour tribunaux yëpp daal di defal ba noppi rek respecté lépp loo xamante ne àq la ak yelleef ñoom collectif yi nag ne nañ jamono ji nag comportement bi nga xamante ne moom la seenaa nekkee bañ na du leen jox li nga xamante ne moom mooy ordonnance huissier ba noppi dafay mel ni rek liggéey bi nga xamante ne daal nañ koy def ñoom ñoo ko daal di xajamal collectif yi nag ci seen jëmmi bopp nag ña ngay dankaaf bu baax Macky Sall ak nguuram mu daal di jël lépp loo xamante ne responsabilité la fexe rek jëfee lii di décision bi tukkee nag ci loi bi ba noppi rek ñoom collectif yooyu nag ña ngay daal di xamlewaat nag kat yi nga xamante ne yëkkati nañ ko ñeel décision bu nu mel te mu tukkee ci wàllu justice ba noppi rek ñu lànk ne duñu ko jëfee jamono ji nag ña ngay jàkk rek ñu def leen ak sanction pénale boo xamante ne rek day privé seen liberté ñu ngi ko def nag ñi ki démb yam ñaar fukki fan eh, ci weeru décembre ñoom collectif des avocats yu Ousmane Sonko jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen